alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb talaatay tey jii la ci gën a fës suñu lamb ma nga ñëw ci tàkkusaan gi Balla Gaye 2 di waajal la 30 juillet nekk ngoon gu spécial ci moom ndax mi ngi dajee ku ko daanoon ñaari yoon ñetteel bi yoon ñu war dajee kon suñu ñu xamal ne kon Balla Gaye de tàkkusaan googee war naa def la tout nga ñëw ci Zarko di ñu xamale digganteem ak Diène Kaïré Zarko ma nga ca Sine Saloum ba ma ngay waaj bu baax a baax ci côté mystique ma ngay belendewu kii du jaan jeeko ma ngi leen di ñaanal njekk ma ngi leen di ñaanal grâce moom ak ki xam si

njabootuk làmb yëpp suñu am ngay ñëw ci combat yi nga xam si ni moo war a am ci diggante Mathieu Pereira ak ki nga xam si ni moo di Mbagnick Kaïré combat yi le 29 avril la waaye combat bi ca am diggante Papa Laye ak ki nga xam moo di Boy Malika suñu làmb mu ñu xamale ak yeneen combat ndaw yu am solo yoo xam si ni bootal nañ ko journée bi kii di Ama Baldé ñaari journée yi nar a tegaloo la nar am ci carrière am ndaxte ba mu dalee bëree ba léegi amagul ñaari combat VIP yoo xam ne dinañ jegante 4 mois ndaxte bu bëree ci li nga xam si ni moo di 9 juillet dina ñëwaat bëri ci 29 octobre ci CNG nam ko bëggee bëri Gris Bordeaux après mu dem bëri ki nga xam si ni moo di Modou Lo suñu làmb ma ngay ñëw ci la 11 juin dara nekk tàkkusaan gu rëy Dame Sène Modou Dia ak yeneen combat yu am solo yañ cay amal diggante Forza ak ki nga xam si ni moo di Serigne Ndiaye ak ki nga xam te ni moo di Eumeu Sène junior combat yooyee war a am Franc Forza Serigne Ndiaye de Eumeu junior combat yooyu yóbbu nañ ko la 21 mai jëlee ko ci la 14 mai ndax drapeau chef de am ca ndar ki nga xam te ni moo di mbës suñu la mu ñuy xamal écrit Doudou Baka Sarr la ne am na combat ci diggante ma ki nga xam te ni moo di Boy Pire numéro 2 combat boobee ñoo ko jàpp le 29 mai suñu la mu ngay ñëw ci date bi nga xam te ni le 9 juillet bi ñu yóbbu combat ki nga xam ni mooy Ama Baldé ak Jax ma ngay interpellé ma ngay artu di xam ne ne date boobee moom lañ ko joxoon te joxee na un million te date boobee ma ngi ci waroon a tëgg Cheikh Tidiane Niang ki nga xam si ni mooy Alboury wu Tëngéej nga xam si Bambara taxawal na diggante Batista 2 ak ki nga xam si ni moo di Sandiafou suñu làmb ma ngay ñëw ci Yankhoba Diattara ministre des sports ma ngay ñaan kii président Macky Sall mu ñëw teewee li nga xam si ni moo di drapeau chef de l'état bi ñuy amal ca la li nga xam mooy 14 mai ma ngay ñaan daal di présider li nga xam si ne ouverture bi le 12 la mu ñu xamal ne loolee le ministre des sports président de la république ginnaaw loolee ñu sant leen gërëm leen